samedi bi passé day euh, euh, samdi Macky Sall la nga woon RFM Idriss Seck ca Thiès ñoom ñaar nag lu jiitu loolu ca àjjuma ja mm-hmm. gis nañ ca pare ba mm-hmm. xëy kii na ko RFM laa jëm kee na ko Thiès laa jëm mm-hmm. lañ doon waxtaanee ñoom ñaar kenn ku nekk nag kee dafa jundu kee dafa Idriss sekk dafa tasaare kee dafa jundu kee dafa tasaare li sa sekk wax nag moom fëgg na dënnam ba pare wax wax ju leer nee na mu neex leen ça dépend ci sénégalais yi moom daal da leen bëgg a dimbali boo leen bëggee ngeen wateel ko boo leen bëggul nag tampi <laughs> idi daal loolu la wax ñu seeti idi ba pare idi nee na moom mooy chef de l'opposition nee na ñu fiy nganda ngandalu yëpp di am ay mbooloo di wax moom mooy chef de position ndax élection yi mujj moom moo jëloon deuxième kon ba tey chef de l'opposition ñu dem seeti Idrissa Seck ca waxtaan ba muy waxtaan ak ak ñi nga xam ne mooy ay militant foofu ca Thiès waaw maa ngi leen di nuyu ginnaaw yàlla ak yonent bi bi ci koor gi ba pare di leen wax ndokkale ci koor gi baal leen ma àq baal naa leen yal nañu yàlla boole baal loolu nag ci tarixu jullit la am ndax ci jamonoy yonent bi bu ñu musaan julli korite war a tabaski dañuy baaxoo di dem ci kër yi di baalante àq looloo waral tey ñu topp tarix bi ba tey ñu war koo mën a doon di ko def moo taxit yéen ñëpp baal leen ñu àq waaw léegi nag tey sama teewaay fii dama leen di jox ñaari information waaw parce que ñu nee neewoon man maay soow ki mooy mburu tey mburu soow àndatuñu soow dem na mburu dem na waaw waaw soow dem na mburu dem na ndax lu tax man soow ma nangu dem dama gis ne wax dëgg yàlla mun naa am sama yoonu bopp su ma neexee ànd ak fonde su ma neexee ànd ak sànqal su ma neexee ànd ak bu xam sa su ma neexee ànd ak beneen xeetu ñam bu dul mburu te mburu mi sax ci boppam bu yàggee ci biir soow mi man sama bopp man maay njëkk forox maay njëkk forox forox googu nag nga xam ne loolaa doon bañ nag moo tax ma woo mburu ba mu ñëw ma na ko wax dëgg yàlla loo tàng tàng tàng boo duggee sama biir dangay sedd te man soow nekk naa koo xam ne duyoo rek laa mën a àndal waaw boo gisee nag ma mën a ànd ak fonde ànd ak li nga xam ne mooy ñànkatan mu nekk sombi ak laaxu sànqal ak li nga xam ne mooy bu xamsa ak yeneen xeetu ñam yoo xam ne mun naa ko couscous marocain yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne mun naa ànd ak ñoom man soow léegi nag ma wax ko nag soow dafa ànd ak raisin ak moscade raisin ba mooy aale sale Diop bi mooy ki nga xam ne mooy jatara nee naa jatara nag ak ki nga xam ne moom mooy raisin saala te yor élevage bi ne leen comme man soow damay génn yéen tamit génn leen ci ponse mburu bi président sax wax na ma moom président mburu mburu sàll nee na ma bu ma yoon nga bàyyi mag sa ñaari gaa yi ndax ay liggéeykat nañu ma ne ko nag ñoom du ma leen te bu fekkee ne ñoom ñu ngi liggéey kay yow yaay yow yow yow mburu xam nga ne diggante soow ak mburu li nga xam ne mooy moscade bi ak raisin bi saf na ci kay bu la neexee nga bàyyi leen fa waaye man damay dem sama demu bopp ñoom nag wax naa leen ko waaye raisin bi nga xam ne mooy a Sale Diop nee na ma moom soow fu ma génne day dem ndax moom da ciy bañ a wéet waaw moscade bi nga xam ne mooy jatara moom tamit nee na wax dëgg yàlla toogaayam tamit ci biir ponse bi gisu ci boppam moom tamit day dem kon nga xam ne nag ànduma man kese cundum kon dama ànd ak ñi nga xam ne ñoom laa mën a àndal man mënumaa ànd ak diwtiir ndax soow ak diwtiir defu ñu neen na waaw ñaareel baa ngi doon ñetteel bi ñu fii nganda ngandalu di jéem a woote ñoom ñooy jiite opposition bi dañuy tappale ndax élection yi mu doon am man maa nekkoon deuxième kon léegi tey damay delluwaat nekkaat chef de l'opposition aw ndax li ngeen may gis nii man dama nekk sama tool fii ngee xoox dafa yar samay fas samay xar samay nag samay ginaar samay kanaara samay jësit samay picc waaw damay yar ay jësit ay picc ak ay fakoseer mbaam rek laa dul yar te fan yi dinaa yar mbaam ndax mbaam bi boo ko yaree mën nga koo jaay ndax fakoseer yi dañuy lekk mbaam fakoseer mbaam lay dundee yooyu nag man mun naa dund ci sama dundu élevage dama leen di dimbale rek yéen sénégalais yi dama leen di dimbale waaye man li ma yor mën naa cee dundu ba àdduna tukki ndax yàlla damay wax kay yàlla defal ma li nga xam ne moom la defaloon Busiri nga xam ne dafa tibb sàq jox boobaa nag mu gën a neexati waaye booy nekk fii ci opposition bi di nganda ngandalu nañu xam ne man maay Idrissa Seck chef de l'opposition mu neex leen mu naqari leen man ko yàlla def waaw bu leen neexee na gaar gaarawaale naan waaw mburu soow ñoo ànd man daal jël naa sama yoonu bopp te duma ma soow soow soowu école xam ngeen soowu école mooy bi pël bi di defar ak sunguf meew woyal ko man soow piir laa dag may rat te foo ma tegee bu yàggee ma doon fromage soow piir meew laay doon ba pare doon soow nekk fromage kon man si sama bopp am dérivé fu ma neex laay dem way man dama faale mburu man mun naa dem man saa mburu mburu kay moo may maa koy dimbali te yàlla tax moo taxit ma jàpp ngeen jàpp ko man sama yoonu bopp laa jël ah. te li mburu bëgg laa bëgg mburu nag bu fekkee ne day nekk candidat moo xam bu nekkul candidat man danaa jël sama yoonu bopp ndax man maay chef de l'opposition loo leen wax léegi